téere hmm. bismillah on t'invite au débat jërëjëf Der jërëjëf euh, naataango yi ak sunu gan yi ak sénégalais yi ñuy seetaan euh, ni ko ñëpp defee rek may am kàddu njàll aussi à l'endroit de tout ces familles touchées te Sénégal yëpp lañu ñu touché loolu aussi pour man beneen correction la bu ñu war a def mooy ñu xam ne ñun ñëpp kenn ku nekk ñëpp la ñëpp ñi kenn lañ donc euh, te loolu pour man cette volonté commune de vivre en commun nation buñ ko bëggee tabax foog ñu xam ne yitte bu mag lañ war a am pour que kenn ku ci nekk comprendre ne kenn ku ci nekk sa moroom nga. ba bu lu métti dalee ci kenn ñëpp mën ko ressentir ndoo mën ko méttitlu comme ni mu waree euh, donc di leen jaale ñoom ñëpp euh, di jaale tamit di di di jaale aussi euh, les moment surtout nga xamante ni dafay métti ci ñoom tombeek aussi 8 mars ñuy bàyyi xel. aussi toutes ces femmes euh, qui perdent la vie en la donnant parce que dafa am Sénégal ba tey ñoo xamante ni may wax ne boo bu jigéen ëmbee Sénégal koo romb ñu ne yàlla na la yàlla yàlla na nga mucc parce que xam nañ ne le risque il est grand tey rek maa ngi yendu ci biti hors de Dakar mais tu vois un peu li ñuy wax fii yëpp da nga koy gisaat soo génnee jigéen ñooñ ngay romb ci tali bi yëpp ñu toog ñu yor ay buy ñu yor ay gerte ñu yor nangam ñu yor nangam honnêtement da ngay gis ne il y deux Sénégal totalement différents totalement lu ne fàng nag kenn du ko jeex pour man euh, ñun ñëpp benn ennemi la ñu am aujourd'hui c'est l'injustice ci forme bépp injustice ci forme yëpp inéquité sociale ci forme yëpp ñun ñi nga xamante ni yàlla daf ñu dafa dogal ñu dëkk ci Sénégal de l'intérieur dañuy gis ne sunu progression yëpp daanaka da ngay gis ne ay échappée solitaire sax moom moo ci am parce que l'inégalité des chances dafa nekk une réalité extraordinaire yenn saa yi même l'information à un certain niveau pour nga am ko pour xam concours bi nga war a def kañ la war a am accès ci yi ñuy wax les mécanismes encore une fois euh, de l'État yi ñuy def pour war ko metre à l'endroit des jeunes et gis na yooyu am na foo xamante ni sax boo fa dëkkee pour nga jot ci problème la pour nga jot ci di nga gis koo xamante ni dafay paas ñëw ba Dakar juste pour venir prendre une information donc loolu yëpp pour man aussi c'est des choses qu'il faut régler définitivement il faut l'attaquer il faut aussi qu'on nomme les choses je pense que aussi ñun euh, difficulté bi ñu gën a am mooy loolu jamono bi ñëpp ngi woote apaisement ñëpp ngi woote jàmm c'est bien beau ñun ñëpp dañuy woote jàmm te soxna si ma koy delloo njukkal tudd na léegi la plateforme des des femmes pour la paix en Casamance man mii je suis un ambassadeur pour la paix. femme yooyu ñoom ñoo ko def. parce que képp koo xamante am nga une voix qui porte li lay dimbali mooy nga fexe jàmm am parce que bu jàmm amul dara du am mais jàmm dafa am loo xamante ni moom moo koy moo koy laytaay. fin wu processus la processus boobu nag justice ci la bokk équité sociale ci la bokk amul société bu amul problème amut mais li métti ci société mooy ñenn di am problème ñeneen ñi di leen ko teg ñooñu di leen ko teg dem retranché wu. daal di nga xamante ni tu vois des zones des espaces où la vie s'est totalement retirée totalement les gens sont à des besoins yoo xamante ni très sincèrement c'est des questions de survie je veux bien que les gens soient à Dakar je veux bien que les gens portent ce combat pour la justice mais bu fekkee ne yow da ngay négocier aussi sur le dos des populations ça pose problème parce que nekk Dakar tu ignores totalement la réalité Euh, bi nga xamante ni moom moo nekk à l'intérieur du pays wala dans les banlieues une réalité extraordinaire nga bëgg a ñëw ne damay wax au non de ces populations la ça pose problème et le c'est le problème que nous avons tous dans ce pays et dans dans beaucoup de pays africains les députés deviennent des députés de la capitale tous ceux qui sont nommés quittent leur ville ñëw tout le monde sa bat ñëppay xeex pour am lopin de terre à Dakar parce que wóor na leen ne fa nga dëkk moom boo fay wut kër sax c'est pour des raisons politiques et politiciennes pour boo demee am fooy recevoir ses militants et on entretient on ne règle pas la question de la pauvreté on l'entretient on ne règle pas les problèmes on les déplace boo demee ci sunu budget ni ñu koy tëggee da ngay gis ne il y a une volonté manifeste d'entretenir les couches vulnérables ci pauvreté boobu ak paupérisation boobu nga xamante ni da ngay bëgg xëy na saa boo leen soxlaa rek ñu jóg on parle de l'autonomisation des femmes mais on en parle depuis les femmes trinquent ba fii may wax a yow on parle des jeunes aujourd'hui pour man dafa am solo trop ñu waxtaane ko parce que réewu ndaw la ñu yor mm. waaye nag sëriñ bi euh, loolu ñu leen dikk du da bàyyi ba ñu egg ci état bu jeunesse boobu nga ne ñu régler ko c' est depuis la petite enfance depuis ni ni muy progresser la nga war a def ci moom ci citoyenneté la nga war a def ci moom ci volontariat ba nga xamante ni bu accès foofu hmm. dina xam li ko war ci réewam. madame Diaw junj na ko d'ailleurs dans ce waaw donc di nga xam ban rôle la war a jouer hmm. ak lan la war a mën a def donc mbir yi pour man c' est est un combat de génération du ku ñu wax nee ñu suñu président Macky Sall waxee nañu les problèmes qu'on a remarqué mën nañ ko régler ci benn at wala ñaari at wala ñetti at c'est c'est c'est pas conforme ak li nga xamante ni moom mooy réalité bi la réalité mooy que ne am na ci loo xamante ni da ngay jeter les bases ñu fas yéene ko régler définitivement moo tax ni nga libalee ce sujet bi nii c'est tellement important plus jamais ça mm-hmm. mais le ça c'est quoi mm -hmm. plus jamais ça les les causes mm-hmm. lépp Pape Djibril lépp donc il faut que ñu d'accord ci les le sa le ça si ce le ça mooy les causes loolu nga xamante ni moom moo jur lee conséquences donc nañu régler lee waxtaane li nga xamante ni aussi c'est une violence qui s'est exprimée d'une façon malheureuse ñëpp déplorer ko mais euh, tout le monde avait vu venir malheureusement. Charles bismillah. waaw euh, jërëjëf Diar dina jaar fu ñëpp a jaare di jaale famille yoo xamante ne ñàkk nañ seen ndaw le blessés de quelque bord ñu bokk aussi bien de manifestants que ñoo xamante ne. ñu bokk ci takk der yi les hommes de tenue